muy sëriñ su bëgg bës yi nan bàyyi bëgg bës bay tuumal gor hmm. waaw sëriñ su bëgg bës yi laa am na benn sëriñ bu ma dégg muy wax ak guy gi si net bi hmm. lan moo ko si kaw suuf waaye li gor gu war ngaa moytu ñu la yaa tooñ bu hmm. fekkoon da tooñ si biir néeg sax mu waaye si penc àdduna yëpp nga ne maa tooñ maa ngi jégalu te doy tooñ lépp ay fen la gor war na ko moytu guy maa ko jox jat daf maa war bu ñëw si ma dootul daan guy gi woo nga ne non juum maa ngi jégalu waaye xoolal ma bii gàcce waaye yéen loolu ko gën a ñaaw si kaw suuf te lépp bëgg-bëgg rek moo ko rek kee taxaw dem te Eumeu Sène waxu si moom lu ñaaw te dara amu si moom it bàyyi li mbër yi ñooñu gën a nekk ay noobu. est-ce que dañu bëgg buzz moo tax ñu laal Eumeu laal guy parce que ñooñu tamit ñooy ay nit yoo xamante ne foo leen laalee buntu feeñ. waaw ñooy ay nit yoo xam foo rek buntu feeñ mooy li ma la waxoon si ku nekk lu suñu borom si yow mais mbër lu ñu nekk nekk nekk nekk nekk ay noobu war ñu mën ay noobu. Hmm. mbër lu nekk nekk nekk nekk. ay yàlla may ñu siiw am tur waxuñu koy nekk ñaankati ay nobu amul benn mbër bu ñemee jël combat te demoo sëriñ bi ni ko xoolal ma combat bi ni demee. Hmm. amul benn mbër bu ñemee jël combat war nga war a bëri te takkoo naanoo sangoo saraxoo ñan ñoo leen koy digal ñaankat yi kon ñoom ñaankat ñooy seen patron ndax ñoo ñu digal ñu def jaaral fii bu jaar fii moytu lii moytu lii ñu koy moytu kon ñun ñoo war fulla ñoo war fayda mbër mbër la sëriñ sëriñ la ministre ministre député député la ku nekk day am place am. ñun waruñoo bëgg a tur si ñoom ñoom ñoo war a bëgg a tur si ñun. ah tey damaa seet sëñ Mor maa ngi sëñ Mor toog loolu ñoom bës la war a nekk si ñoom mais pas maa ngi diw ñoo toog mu nekk bës ci yow loolu du du bës baa jëli maa mbër bi ñoo toog loolu du bës. ni nga ko seetaanee dama am waaw damaa rus ba mu ko déggee muy wax gugi di wax te gugi lu mu koy wax lépp muy dëgg leen rek lay wax moom. maa tooñ maa ngi jégalu maa tooñ maa ngi jégalu du gën a ñaaw loolu. sëñ bi des fois nee nañ sama classe gi dañ lay wax loo sax loo bëgg ta wax de. waaw mais Baye Djily tey am nga droit poser ma question. Hmm. mais am naa droit question bu ma arrangé wul du ma si tontu boo neexee mën nga maa laaj question bi nga bëgg hmm. mais question su ma wóoree ne arrangé ma non du ma si tontu parce que fii Sénégal la li ngay wax am na yëpp koy dégg te guy gi xam ne bokk na benn dañ la fukk guy gi moom xam bën bën nga benn mu lay bàyyi waa du guy te moom it ñu la ko ko am fula la buy am ndam si fula lay amee ndam buy daanu si fula lay daanu kon ñun nan defaraat suñu toogaay rek bàyyi ji li sëriñ sa lépp sëriñ si la rek moo tax man du may bëgg di may bëgg di toog sama ruq rek waaw te teewul damay ñaan ay mbër la damay toog sama ruq rek waaw di moom laa waroon njëkkee sax ana si jégalu bu baax. di ñaanal suñu mbër suñu roi des arènes mun Modou Xarañ Lo yàlla may ko gudd fan ak wér yaram li ko dal suñu borom saafara ko ba mu reprendre ay entraînement am ñëwaat si làmb ji ñu préparer suñu combat ak lu mun mënti xew mooy am ndam. bu rëy. ak lu mu mënti xew mu am ndam fala budde la. amul ma dem te ñëw Baye Jili ñuy bëreel nit nit ngay nekk Modou Lo gor la ay gor a ko jur. Ama Baldé gor ay gor a ko ba mu dalee bëre ba tey mos gis ñu Modou Lo mooy ak laam man de mën naa kitaab sa alxuraan ne li dal Modou Lo su fekkee moo dal Ama Baldé man mu jël oto dem mu seet ko masu ko. ziar ko waaye loolu mooy Sénégal ñun mën nañoo seq ne mais mun ñoo xasante mën jëfante lu ne mais mun ñoo xasante ay muloo dafa lii muloo dafa lee muloo koy daw di doo parcelle màggee parcelle di doom parcelle di yor drapeau parcelle di daw kon ñu gën si moom. booy dañ ne xiir bi dañ ko dugal ci ndox diw ci karité di ko xaar rek force dina leen daal. xiir boobu day nëb day nëb. xiir bu ne bi dal bu laale bi ñoon day dagg. Hmm. bàyyil. courant si kàttanu yàlla ak mbaaxam si weeru koor la koy xëy barki Seexu Tijaan mu la pareewul pour daanu. Hmm. cool nag bari na nga gis ay sëriñ baar di wax di waat. waa léegi man dama am lu ma si net bi ñi faral Ama Baldé bu ñu waxee. Hmm. ñoom gongo rek ngay dégg mais ku faral Modou Lô bu ay saag ngay dégg. xanaa léegi affaire nekk ci démocratie ñu yor cumbukaay Ama Baldé ay magam dañuy wax di waat ne Modou de day daanu ay ménageuram di traité Modou Lô tous les waaw ñoom bu ñu waxee dégg bravo léegi ñu ànd ak Modou bu ñu mu mun xas ñun mu nekk ay saaga bàyyi ji ragal pété day xam ne wërsëg bu dee Modou Lô Ama Baldé moo tax ñu may saaga wala ñu may xas noonu nañ bind yu baree baree bari te xam ne fi ma teg sama temps du ko teg fii ak Modou war si ko Ama Baldé teg lu munti xew day war si ko am loolu sorewul hmm. man benn kàddu am Ama moo jékku Modou Lô problème Ama Baldé moo ëpp doole moo gën a nekk xale moo yor waa Zérén da ko jur mu daan am problème mais billaahi laa la si eggee ak jàmm ban tëj barrière dina jub ko fogeewul yuuxu dina jub ko fogeewul bàyyil man damaa téléphone yi damaa bokk fépp hmm. Pikine Parcelles Guédiawaye amaana sax Pikine laa ko ay ay nit ma wax xam du jeex du xaaj dafa bëri ay soppe hmm. mais drapeau benn drapeau la drapeau Parcelles man produit Parcelles la Parcelles sama fierté la Parcelles la ay titre lu ma am si àdduna Parcelles ma ko gën. mbiru Parcelles ku muy bëreel ñàkk na. man waxuma la mbiru Parcelles xaju Parcelles. buñ ko ngémmee muy bëri ji ñaan ko jub jub jub moom laa kay sëñ bi li nga wax ni du xam-xam mais da wax que parce que da faral Modou Lo njort ni day daan Ama Baldé ak Ama Baldé waxuñu si waxu ay ndax sax nag waxu baatin laa lay wax. Hmm. baatin combat bi du komba doole. ay mbir bu entraîné ba am doole ñu pour jàpp daan du combat boobu. ñoom leneen leen soxla si ñoom ñu présenté wu rek ngeen ñu taxaw bis yëpp ñoo ko liggéey. xeex. billaahi wallaahi wa def lépp. ñoo leneen leen soxla si ñoom. nan ngeen rek ñu taxaw ñu présenté wu. lépp ñoo koy def ñu service. bu ndaw. bu baax te gis naa ko mi ngi si mi ngi si état bu doy waar. daa dugg parcelle yoon daan waa parcelle ñett yoon. du ñeent. daan Zos. Mhm. ñu ne ko mu mm-hmm. daan bàyyi. Mm-hmm. nee na ah Modou Lo moo ko tere woon dugg ci làmb moo Lo rek la bëgg. waaw xam nga dégg naa mu wax benn wax mu ne buñ joon ba màgget. Mm. mu la yor bant. dina ko fekk ba nekk paa dina ko fekk mu toog puus bant bi daaneel ko dem yoonam. kon xam ne Ama am dara mu loo ma ko gënoon. te bàyyi ñu tam lu am daan Ama Baldé mu gënoon parce que Ama la. lu ah, daan Ama Baldé fu ñu yóbbu. daan Gris Bordeaux daan Eumeu Sène ñaari yoon hmm? daan Lac de Guiers bëre bu mujjee ak ñu mel ak moom léegi boo daan amal fu la yóbbu du la yóbbu fenn dañ koy boole si liste bi pour ñu koy dem si yoon mais du ñu fenn ñu koy pare bu baax a baax a baax fii ba deux mille soixante cinq heure bu ñëwee daanu amul zaa amul pôle